asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé ñu ci waxtaan ajuma ju jot ci lépp lu ñel lu ñel wàllu wérgu yaram te ñu am euh, mbégte di ci dalal ki nga xam ne moom mooy euh, Ousmane mbay nekk secretaire à la formation professionnelle et syndicale bu SUTSAS nekk yi tamit euh, njiital région bu Ziguinchor bu kuréel bi nga xam ne moom mooy ASAS SUTSAS SUDETM donc santé. bokku ci euh, alliance And Gueusseum euh, monsieur mbay ñu ngi lay jaajëfal. jaa ngeen jëf yéen tamit waa Rewmi FM maa nuyu di leen nuyu di nuyu seen auditeurs yi. Mhm, ñu ngi lay fay aussi euh, voilà pour ñu tàmmali rek Ousmane mbay yaa ngi bokk ci kuréel bi nga xam ne moom mooy SUTSAS nga yor formation professionnelle. ci mhm. biir kuréel bi mën nga ñëw un peu ci ci sa wàllub liggéey ci boobu lépp syndicat wér gu yaram. waaw bon sama wàllu liggéey euh, ñu ngi ma jox euh, sas wi ci congrès bi passé ma war a euh, mën a taxaw ci wetu secrétaire général bi di jàjj sama moroomu syndicaliste yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi. Mhm. pour que ku ci nekk lépp lu nga xam ne moo nekk ci heure débat théorique bi nga mën am. argument yi ak éléments yi nga xam ne moom nga war a mën a am ba mën a comprendre nature débat yi ak enjeu yi. Mhm. Euh, jamono ju nekk aussi ku ci nekk fa nga taxaw nga mën a xam lan mooy orientation syndicat bi ba booy jël décision ak boy jël position mu mën a méngoo ak loolu euh, ànd ak ñoom aussi ci di leen préparer pour que ku ci commencé ak niveau boo mën a commencé ñëwoon la yoon yi nga mën a jaar ba mën a gën a xarañ ci liggéey bi am ay lijaasa yuy tax. diplôme ba nga duggee woon ci métier mi. Mhm. yàlla man laa may nga avancer ci biir liggéey bi ba bu ëllëgee nga am ay position yi nga xam ne ñoo gën position ba nga amoon ba ngay commencer. Mhm. parce que képp kuy door dara li nga ciy wut mooy jëm ci kanam. Mhm. donc euh, bu ma bëggee gàttal daal ci ñaari wàll yooyu laa leen di war a jàjj pour que camarades yi mën a am xarañ gi ci war. war a am cofeel gi ci war ci liggéey bi war a am cofeel gi ci war am aussi ci askan wi. ndaxte bu demee ba wax jeex ñun ñi ñëpp ñi ci ëpp ci ñun ku leen bàyyi woon ak seen baay rek rek rek rek wala seen yaay formation bi am ak man-man bi ñu am ak euh, euh, comment dirais-je encore xam-xam yi ñu àndal du ñu ko mën a am. Mhm. askan wi moo boole am amam ak man-manam taxawal école yi nga xam ne fa la ñu jaar. di fa sàkku xam-xam di fa sàkku man-man ba wëlbatiku am tey jii lijaasa yu ñu am ak responsabilité yi ñu am kon askan woowu dafa am lu ñu warloog moom war ko ko delloo. Mhm. te fan ko koy delloo nag comme ci république lañ nekk mooy ci biir biir service public yi. Mhm. service public yooyu war a am ci suñu wàll ak yëg gu mat ba nga xam ne nit ñi bu ñu fa ñëwee du ñu rëcc lu ñu fa doon wut si. Mhm. waaw. voilà mu nekk lu am solo kon Ousmane mbay nga bokk ci euh, kuréel bi nga xam ne moom mooy ànd gësëm ñu xam ni euh, ànd gësëm dafay am lu bari loo xam ne da koy def ci euh, wàllub xeex lutte syndicale ngir lépp loo xam ne jëm na ci. Euh, vraiment dundinu askan wi ci euh, lu ñelal seen euh, nekkin ci wàllub wérgu yaram tey jii nii ànd gësam fu mu toll ni ñu gis ne mu ngi au premier plan ci jamono yi nga xam ne ci leenu toll muy ah. coronavirus bi tey jii mhm. nii mun nga dellu si ci un peu ci li nga xam ne moom mooy situation boobu ak taxawaay ak plan d'action yi nga xam ne waa ànd gësam lal nañ ko ci ci ci xeex bi waaw ànd gësëm dafa commencé woon a wax bi dara xewagul mhm. déjà en janvier février génne nañu ay communiqué booba mbir yaa ay Chine di dugg Europe dara xewagul woon Sénégal ñuy alerter nan nañ leen ci jóg wax ci nañ leen jóg fagaru ci parce que lii daaneel ponkal yi bu jëm see ci ñu néew doole euh, ñu néew doole war nañoo tiit léegi nag euh, am na borom xam-xam yu ni euh, bu fekkente ni jumtuwaay doyul organisation rek mooy mën a doon tontu li. Mm-hmm. organisation day fekk ni da ngeen a bokk toog ni lan la ñu war a def fan lañ ko war a defee ñan ñoo ko war a def ak lan lañ koy defee naka lañ koy defe mm-hmm. bu boobaa liy dikk bu egsee duñu bet te xëy na suñu organisation dinañu mën a may ñu jàkkaarloog moom. Mm-hmm. Euh, ci jamono yooyu dafa mel ni dégguñu nu woon. Mm-hmm. mais tey euh, parce que bi ñuy wax ci waaxu système de santé bi di wane ni bari na lu fa manqué manqué na personnel. manqué na matériel xaalis ba fa war a dem demu fa collectivité territoriale yi liñ nu war a jox ci seen i budget duñ nu ko jox euh, fonds de dotation yi li ci ëpp bu waree ñëw dinañu ko fel euh, établissement public de santé yi nga xam ne ñoom ñu ngi am seen conseil d'administration war a am ay subventions yu leen état yi jox souvent da ngeen di dégg gars yi wàcc ci mbedd mi bala ñu ciy jot. Mm-hmm. Euh, mu doon benn sofantal bu nga xam ne soofantal nañ ko service de santé yi. corona ñëw fesal loolu lépp. Mm. kon da gis na tey corona dafa wone lajj gi nga xam ne lajj nañ ko ci wàllu euh, wér-gu-yaram. amul benn werante. Mm-hmm. de sa euh, bu ñu déparé ci Senghor ba ba ñuy egsi ci Macky tey jii may wax. Mm-hmm. Euh, régime yi fi tegaloo yëpp dañoo lajj ndaxte ba nga xamee ni plan d'ajustement structurel commencé na la leen FMI ak Banque mondiale waxoon ni leen santé ak éducation bu fa kenn dugalub dërëm parce que du jur dara. Hmm. ñu ni jiite gëm ko fàtte ni bépp réew boo ci mën a gis mënul suqaliku mukk te fekk na ay doomam jànguñu ba yeewu bépp réew boo ci mën a gis mënul suqaliku mukk bu fekkente ne ay doomam wéruñu wér nag dafay boole wér ci xel wér ci sa yaram wér ci sa nekkin tey jii boo xoolee corona bi ak problème yi mu ñu posé da ngay gis ni ah bu dee xam-xam ñu ngi koy joxe ci bérébu jàngkaay yi ndax ñu ngi yar loolu beneen wax la. Mhm. waaw. Mhm. voilà tey jii nii ñu gis ne système de santé wax nga ko dafa bëri ay euh, défaillance yoo xam ne am na ci yaa ngi koy wax léegi yàgg ngeen ko kaas yéen waa ànd gësëm ak yeneen syndicat yu fi ne di wax ni mhm. santé bi euh, ñoŋul mais tey comme ni nga ko waxee covid 19 bi wane na ni exactement loolu am na parce que la preuve gis nañu ne tey jii nii jafe-jafe yi tàmbali na parce que coronavirus bu muy soog a ñëw ay cas yu simple lañ doon am donc ñu ngi doon am ay résultat di kii mais cas grave yi dafa commencé rek rek défaillance yi commencé ñu koy ñu koy ñu koy nemmeeku ba ci euh, ay maanaam sikki sàkk di commencé am sax diggante ministère de la santé ak ku mel ni professeur Seydi bi demoon mm fu mhm. mel ni Tambacounda di wax manque de structure ya fa am waaw euh, foofu kat euh, euh, effectivement corona dafa dikk gën a leeral débat bi mhm. et je pense que tey ji au plus haut sommet président de la république léegi réeréetul mbir mi. Mhm. ndax bërki dem bi muy woote benn visioconférence pour jël ay xalaatu ay technicien ci wàll wi jëm ci jéem a taxawal benn plan quinquennal développement santé beeg yooyu euh, euh, laajte ay proposition ci ay démarché de rupture ku rupture kon xam nga ne la jiitu woon jaglu. Mhm. boo da ngay jël xalaatu nit ñi tey kon jàpp nga ni démb am na nu ñu soofantale woon xalaat yooyu et que xam-xam bi ak man-man bi nekkul rek ci benn boor du ndax nit ñaa ngi ci gouvernement bi ñoom rek ñoo mën a am xalaat yu nga xam ne mën na defar yéfi yi mbir mi mbiru réew mi la réew mi moo ñu ñor mooñu ñu sof moo ñu soxal euh, keneen ku nga xam ne jàpp nga ni bu nu nee doxul yow la ñuy jam da ngaa mm-hmm. ñu ko doon wax ca jamonoy Juuf di ko wax ci jamonoy Wàdd di ko wax ci jamono euh, yi tey du du du ki toog moo intéressé la muy def moo ñu intéressé la muy def nag bu fekkente ni aw na yoon dinañu ko tàccu bu awul yoon du ñu ko tàccu euh, tey jii corona bi bu fekkente ni docteur Seydi uh, ci ni ma ko déggee ah ci ni ma ko déggee dañu ko chargé de mission ci sama gis-gisu bopp jàppar naa ni. Mhm. mu am yëpp parce que li mu wax lépp dëgg la ah. loolu moom bul ko kenn werante mm-hmm. mais dañ ne wax ayul waxi na aay mm-hmm. xëy na fa mu waxe euh, bu delluwaatoon ba ci ña ko yónni woon rendre leen compte génn def point de presse am coow li du ba am mais ndax mu noppi xel xalaatu ko xel ko parce que nit ki bu fekkente ni dañ laa yónni te mm-hmm. réew mi rek ñor la nga dem gis li nga gis boo dellusee ci ki la yónni woon ni ko lii ak lii ak lii gis naa ko boo génnee bu ñu la ne yow waaw fañ la yónni woon loo fa jëlee di war ngaa mën a am fit ak sa intégrité wu wax ko te professeur Seydi kenn du discuter intégrité am kenn du discuter courage am. Mm-hmm. man bu fekkente ni am naa tuuti réserve rek. loolu la parce que euh, tey jii sama secrétaire général bu ma chargé woon d'une mission dans le pays wax wax dëgg yàlla bala may wa li ma fa xam lépp dinaa wax ak moom ba noppi. Mm-hmm. Euh, waaw parce que tey jii euh, waa ministère ñoom ñu ngi wax wàllu linge sale maanaam euh, régler mbir bi en interne mais est-ce que tey toll nañu foofu parce que situation bi fu mu toll amatul nëbbuwante amatul di nëpp nëppal ak yooyu fu mu toll nii lépp war a teg ci table bi man situé wu ma ci problème linge sale parce que buñ naan linge sale dañ koy laver en famille mhm. fait mission bi ñu ko chargé mënoon nañ ko chargé keneen ku nga xam ne bokkul ci santé mhm. te bu boobaa liggéey bi bu dee réew mee ko ñor. Mm-hmm. réew mee ko soxal dana ko def ci anam ya ware mm-hmm. wax leen li nga xam ne moom la gis lan la ñu war a mën a def ba nga xam ne dina soppeeku. Mm-hmm. n'est-ce pas. mais euh, li nga xam ne man gëm naa ko mooy au-delà du principe de reddition des comptes après la mission au-delà de ça euh, jàpp naa ni euh, professeur amoon na charge et responsabilité wu taxaw ak askan wi. wax ak ñoom wax leen li mu gis na encore une fois li nga xam ne mooy kii li mooy mooy mooy problème tuuti man ci sama gis-gis. Mhm. mooy rek na mu na mu waxee. Mhm. temps ba mu waxee. peut-être mhm. mënoon na xaar ba delloo ñële seen compte wax ak ñoom parce que amul lenn lu ñu war a mën a def ba ne nit ki en régime de liberté waroo wax. ah boo ko santee da nga jàpp am na xel mi am na mat gi Mm-hmm. bu fekkente ne am na xel mi am na mat gi bu doxee li nga koy dox li nga koy yónni ba pare war na mën a taxaw nag parce que yow askan wele fi teg mm-hmm. c'est à notre nom à nous tous qu'il a cette mission mm-hmm. kon bu dikkee di def mission boobu bu pare di wax ak ñun ñëpp gisuma kan moo war a am maqaama naan ko waroo wax du dëgg ah ci sama gis-gis boobu. est-ce que tey jii euh, yéen maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllub syndicalisme beeg yooyu jàpp ngeen ni teel nañ leen maanaam euh, maanaam boole ci xeex bi teel nañ leen. Euh, euh, vraiment impliqué. déedéet loolu moom dama koy wax ci kaw. Mhm. xëy na sama yeneen naataangoo yi ñu ngi may dégg mais lanu njëkkoon a wax mooy am na ay conseil interministériel yu amoon di préparer xeex bi corona bi. Mhm. ba nu gisee ni ñan fa woo syndicalistes yi bokkuñu fa dañ leen ni déet bi démarche baaxul. Mhm. Euh, am na waaju siiw ci réew mi ku daan wax naan réew dañ koy penco kenn ko paaco mhm. Uh, mbirum corona du lu ñuy pàccoo du lu ñuy dañ ko war a teg ci digg place bi ñi ci am cër ñëpp dugg ci te ñi ci am cër mooy askan wi askan wi ak ay démembrement am yu bari bu ci nekk am na lu mu mën a indi te tey jii boo xoolee front bi nga xam ne moom la ñu constitué mais da ngay gis ni des des services de sécurité aux professeurs d'université ñëpp ku nekk am nga place booy taxaw di def li ngay def muy benn xeex bi donc dafa nekk benn xeex bu nga xam ni c'est pluridimensionnel c'est multisectoriel ba ñu gisee ni woowu ñu ni ci yëkkati nañu sunu kàddu ni lii de du li gën waroon nanoo mën a toog ci place bi indi fo tonalité ak kàddu ak information yi nga xam ni. Mhm. xëy na ña fa toog duñu koy indi. Mhm. bon euh, defuñu ko ba mbir mi àgg fenn fii président de la république woote benn visioconférence woote waat une deuxième visioconférence associé ci syndicat yi euh, ñu ne nii la waroon a demee mais waxtu wa mu waroon a am amul. Mhm. ñu ñëw ci euh, li nga xam ne mooy système de santé bi ci euh, région yi. gis nañ ne mhm. déjà Dakar rek fii am na lu bari lu sooxe. donc mhm. ci région yi c'est encore pire. tey yaa ngi nekk fu mel ni Ziguinchor ñu gis ne Ziguinchor bokk na tey ci région yi nga xam ne am nañu. ci li nga xam ne moom mooy euh, cas de coronavirus. waaw donc tey jii au niveau de la localité foofu naka ngeen di euh, gérer mbir mi. waaw ni ñu koy gérer de c'est c'est c'est simple. Euh, comité régional bi mu ngi organisé wu ci kéemtalaay kàttanam bon volonté sénégalaise yi bi nga xamee ne information bi jàll na bari na ci ñu jóg ko ci nekk ci la mu am ak ci la man mën indil na leen ko pour que ñu mën a ci d'une part informer nit ñi. d'autre part taxaw yenn services yi ci ay moyen pour que ñu mën a respecter gestes barrières yi. Mm. notamment raxas loxo yi gel euh, hydroalcoolique bi. Euh, bi nga xamee ne aussi masques yi nit ñi généraliser nañ ko mais masques yaa ngi circuler nit ñaa ngi takk masques yi euh, li nga xam ne mooy problème ci région bi c'était d'une part li professeur Seydi wone mm-hmm. yàgg nañ ko wax xam ngeen ni def nañ fi ay sitting def fi marche wane ni ci hivernage bi passé euh, hôpital régional bu Ziguinchor ndox dafa infiltré wu ba bloc opérateur ba fermé réanimation ba fermé ñun leen lii du dëgg du yoon. Mhm. ba ñuy def marché boobu ak kii yooyu am na ñu nga xam ne jàppoon nañ ni dañuy sànni xeer ci seen te loolu yëkkatiwuñu woon. Mhm. li ñu yëkkati woon mooy gëmuñu ni dëkk bi nga xam ne am na ñaari hôpitaux benn ba fermé beneen bi amul personnel bu toy pour mën a recevoir nit ñi yëpp du dëgg. Mhm. Euh, tey jii professeur Seydi dikk confirmé loolu léegi noor lañu nekk nekkatuñu nawet noor lañu nekk mu dikk woon gis ni euh, service de réanimation ba awul yoon mu génn wax ko ñu ne ndokk yàlla am na keneen ku wax lan doon wax. Mhm. xëy na moom ñu dégg ko ginnaaw ba nga xamee ne ñun dañ ñu tànqamlu. Mhm. Euh, leneen li nga xam ne moo ci moo ci moo ci feeñ mooy que bon euh, dafa am ñaari dëkk yu ñu dar. muy Gambie Guinée Bissau mhm. frontières yi bari na ay béréb ya nga xam ne ko fa taxaw di xaar nit ñi doo leen gis ñuy dugg ak a génn loolu tiital ñu ci région bi nit ñi jog di wax di wax di wax mais le cas du vieux qui a 63 ans feebar tëdd tëdd këram nit ñi dikk di ko seet indil ko feebar bi ba mu mujj bakkanam yi des ci mhm. kooku day wone ni kon ka communautaire yi Mm-hmm. porteur sain yi ñu ngi ci biir nit ñi. Mm-hmm. et information bi dafa war a continuer dafa war a danse. Mm-hmm. nit ñaa ngi ci def seen kéemtalaay kattan d'accord mais ub na bopp. ub na bopp. ndax ndaxte nag fii mu toll nii euh, centre de traitement bi on a à onze personnes yu fa nekk. du ay cas grave mais ay cas contact la woon ya nga xam ne dañ leen identifier euh, ñu ñu positif et les gens les prennent en charge. ci wàllu woowu ñu ngi remercier au passage vraiment tous les Ziguinchorois et tous les gens de la région yi nga xam ni ñii indi nañu parce que boo boo ñu ñooñu ci centre yooyu il faut nga jox leen ñu lekk il faut nga jox leen ñu naan il faut nga toppatoo seen hygiène affaire yooyu. Mm-hmm. et que donc euh, de ce côté là vraiment am na ay association ak ay individualité yu nga xam ni def nañu ay gestes yu am solo yuy permettre justement centre de traitement yooyu ñu baña a état bi ci dara pour mën a fonctionner mën a jël en charge population yi. Mm-hmm. ñu ngi remercier o passage aussi tous les camarades yi nga xam ne ñooy intervenir à ce niveau ci domaine information communication bi comme ci domaine prise en charge maladie. Mm-hmm. yaa yaa ngi wax sànq euh, décès bi nga xam ne amoon na fa au niveau de Ziguinchor. Ah, waaw gis ne tey am ay localités yoo xam ne feebar bi euh, dañ ko yu demee noonu mm. donc de Ziguinchor tey ci côté population bi boobu amee naka la réaction yi. mais ñëpp ñëpp ñëpp la ébranlé ñëpp la parce que xam nga luñ naan mënga na la mënga na la boo demee ba naan mu nii mhm. xam nga ne kon léegi werante weesu na mhm. euh, bi mu amee d'abord li ci gën a yéeme mooy ku nga xam ne dafa alité këram mhm. parce que dafa amoon feebar ensuite maintenant day confirmer li nga xam ne moom la nit ñi doon wax moom la professeur yi doon wax techniciens yi di ko wax wane ni euh, corona bi mag ñi nga xam ne dañoo am feebar bu jiitu ñooñu ñoom la ñu war a gën a tiital ñooñu lañu ñu war a gën a aar. Mhm. ah ñun nag bëgg nañoo seeti malade. Mhm. mais je pense que li dal góor googu dal ki nekkoon hôpital principal war na noo yee ñun suñu changement de comportement yi nga xam ni c'est impératif. Mhm. danoo war a soppi doxalin danoo war a soppi nekkiin bu fekkente ni bëgg nañ ci gaaw génn. ndax nag euh, bu ñu demee ba mu massif. loolu dina wonewaat yeneen carence ci biir système de santé bi de telle sorte que du ñu mën a jàkkaarloo ak ñooñu ci ci ci ci infrastructure du ñu mën a jàkkaarloo ak ñoom ci personnel. parce que au moment bi nga xamee ni corona bi mu ngi dox en même temps ñi am insuffisance rénale ñu ngi continuer di ñëw ci service yi ñi am insuffisance cardiaque ñu ngi ñëw ci service yi ñi xam ne ils sont hypertendus ak diabétique ñoom seen ñu ngi continuer ñëw ci service yi le traumatismes sur la voie publique ñu ngi continuer ñëw ci service yi donc personnel bi yokkuwul mais am na benn affaire bu ñëw indaale nag maintenant un besoin massif il faut ñu mën a contenir loolu te pour contenir ko il faut ñu wax ak askan wi askan wi soppi doxalinam soppi nekkinam sudul loolu mën na dem ba ëppi loxo Euh, parce que tey euh, gis nañu ni comme ni nga ko waxee euh, feebar bi nga xamante ne moom mooy coronavirus ñi am yeneen feebar la gën a la gën a faral di gën a di gën a sonal. mais te gis nañu ñooñu aussi dañuy besoin soxla di dem ci structure de santé yi. di def seen traitement di faju yeeg yooyu. te bu ñu uh-huh. demee foofu tamit am risque jël fa feebar bi gis nañ la xew ca principal ak. mais tey ji loolu aussi est-ce que fu mu toll nii nit ñi nekk ñu di daw au niveau de Ziguinchor l'ARST structure de santé yi. bon nit ñaa ngi dem ci structure de santé mais xam nga aussi euh, la restriction euh, euh, galan galan bi ñu galan xal yi ba tax nit ñi seen dem ak seen dikk yombatul. Mm-hmm. n'est-ce pas parce que dañu dañu waxoon ni circulation interrégionale mais les gouverneurs ak préfet yi dañ leen a jox aussi maqaama mën a dogal. ci diggal ci tund yi ñu yor pour que ñu xool nan la nit ñi nekkee ba mu ñu mën a wàññi circulation virus bi dans ces condition la euh, poste de contrôle yeeg ñoom seen am na ay exigences yu ñuy posé ba nga xam ni circulation wu nit ñi wàññeeku na bu baax. Mhm. nest pas à l'intérieur même de la région. et que donc euh, tey jii euh, propagation bi mu ngi circuler ci biir nit ñi. Mhm. mais nit ñi ci seen bopp seen i déplacement. restreindre na bu baax a baax. Mm-hmm. est-ce que lu baax la euh, couteau à double tranchant la. Mm-hmm. parce que xam nañu niveau de vie nit ñi xam nañu seeni besoins sociaux bu ñu mënatul a déplacer wu na mu waree. Euh, dina poser yeneen problème. Mm-hmm. waaw. voilà ñu gis ne tamit am na la xewoon aussi Ziguinchor euh, ci weeru avril bi. koo xam ne dafa tane woon jékki-jékki ñu ne dañ ko réhospitaliser centre de traitement bu Ziguinchor. mu nekkoon mhm. aussi loo xam ne tiitaloon na nit ñi parce que bëri woon na ay nit yoo xam ne wéeroon nañu fii au niveau de Dakar ak feneen ak feneen mais ñu mhm. jékki-jékki déggaat que ne kii amoon na wéer na amaat na mu mel ni kon feebar bi wonewul kanamam yëpp daal waaw kan feebar bi wonewul kanamam yëpp il faut que ñu itam ñu bañ cee dox ak suñu xel te dox ci ak xam mhm. euh, kenn déggul benn benn borom xam-xam mu ne feebar bi bu la jàppee boo wéree dootu la dal amul benn xam-xam boroom xam-xam de Chine à ici. Mm-hmm. Mm, kenn mësu koo wax. kon ku mu jàpp boo ca jógee gën continuer di moytu continuer di moytu euh, ndax li la daaneeloon mën na la daaneelaat. Mm-hmm. loolu la ñu ba ba ñuy gis leneen kooku nga xam ni dafa amoon feebar bi après bi professeur Seydi ñëwee ñu naan ah mën na nekkaat rechute njàngat mi daf ci bari parce que jàngat bi feeñal na ni. Euh, virus bi sax am na mën na nekk ci sa yaram mais am na nu muy toll ci euh, euh, ci meññam bu ñu defee test day négatif. Mhm. il faut mu sëq ba bari pour que bu ñu defee test mu mën a feeñ ni lii mu ngi ci yaramu nit ki. Mhm. mais kon nag ki nga xam ne mën na koo yor sëqagul bu baax mais mu ngi wàllaate te boo ko defalee test mu négatif bu ma déggee nit ñi naan nañu def test nañ def test dama naan nañ ci def ndànk parce que bu ma mën nañ ma te tey mu négatif ginnaaw suba ma feebar. Mm-hmm. mais diggante tey ak ginnaaw suba fi ma dem yëpp maa ngi leen di yàq. kon lii mën a des mooy bu même buñ ma defalee test ba ne ma tane naa man dey awma ko day dal di nekk euh, sas ci man Mm-hmm. que man ma mën a def ay méthode de barrière takk masque moytu joxe loxo di sori nit ñi pour que ëllëg man bu ma ko yorulee keneen bañ ma ko jox mais bu ma ko yoree ma bañ ko jox keneen. Mm-hmm. donc euh, affaire euh, rechute boobu dafa daf élément bu nga xam ni dafa am importance ci mm-hmm. ci ci ci panorama bi. ndax daf ñuy indil ay euh, xalaat yu bees ci wàllu communication ay xalaat yu bees ci wàllu jël en charge maladie voilà may fàttali rek mbokk yi ñu ngi déglu yéen ngi déglu seen émission SOS santé tey ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Ousmane mbay euh, bokk ci kuréel bi nga xamante ne moom mooy ànd gësëm euh, SUTSAS di syndicat boo xam ne dañuy euh, taxaw ci lépp lu ñel maanaam défendre di xeexal li nga xam ne moom mooy santé wàllu wérgu yaram gën a ñoŋ fii ci biir réew mi. voilà donc ñu gis ne Ousmane Mbaye tey ji fu mel ni Ziguinchor gis nañu ni dégg nañu ni am na comité de vigilance yoo xam ne def nañu ko ci quartier zone frontalières yi pour vraiment li nga xam mooy transmission communautaire yi ñu mun ci taxaw surtout tey problème bu mel ni dem ak dikk bi ak euh, euh, dawalkatu moto Jakarta yeeg yooyu. waaw euh, loolu loolu am na moo tax ma doon wax naan y' une grande am na restriction bu baax. Mhm. bu bu nekk ci circulation yi. et loolu lépp en fait euh, paradoxalement ñun la aar ci suñu bopp ñun ñii ñu bëgg a gaañ suñu bopp ñun la ñuy wut a aar ci suñu bopp. et c'est paradoxal ndaxte nit ba ko yàlla joxe xel ba tey jii dañuy jàpp ni war na mën a xam li koy jëriñ xam li koy gaañ ba muy moytu li koy gaañ. Mhm. mais tey jii les gens sont obligés de mettre ay postes de contrôle di vérifier di contrôler Jakarta yi tey seen tur na. parce que mhm. ñoom ñooy jël mbedd àll yi di yóbbu nit ñi. Mhm. Euh, am na ay réew yu ñu dar te Jakarta yi dañuy fop dañ doon fop ay nit. ci dëkk gi yi nga xam ne ñoo nekk ci booru frontière bi. Mm-hmm. di leen dugal si ci kii yooyu yëpp mu nekk ay risques ya nga xam ni euh, mën na tax explosion wu cas communautaire yi ëpp ay loxo. Mm-hmm. moo tax nag tey euh, comité de vigilance yooyu mais ñun de dañuy koy dañu ci dañ ci dañ leen di delloo njukkal parce que bu tant ñu ngi jouer seen rôle bu fekkente ni kenn wàcc na ci benn quartier wàcc na ci genn kër nit ñi gis ko xam ni kii nekku fi woon mais qu'on le signale. parce que nit ki buñ la nee yow boo dee gan fenn demal nga présenté wu wuñ la police yóbbuwuñ la kaso kenn du la dóor kenn du la xas nga dikk nëbbutu yaa ngi mm-hmm. indi joote. te mm-hmm. xam nga nëbbutu yooyu au nord moo indi euh, ay côté wu Thiès ak yooyu li ñuy wax ay décès communautaire xam nga loolu depuis bi affaire bi commencé ba léegi dégguñu ko. Mm-hmm. mais décès communautaire mooy lan bu nga xam ni euh, yor na jàngoro ji dem nëbb ko. nekk ci biir bokkam ba yàlla moom ko. Mhm. mais soxna si bu boobaa. Mhm. yow sa yaram war na daw sa xel war na tiit ndax ba mu feebaree ba ba muy loru. ñaata nit la gis. wallaay ñaata nit la gis. Mhm. ñaata ñoo fa ñëw ñaata la wàll ñooñu ñan la est-ce que mën nañ ko retracer lépp. ñu ne bu leen tiital nit ñi mais si il faut que ñu wax nit ñi lu leen di tiital parce que am na la nga xam ne ku ko ñemee def c'est doo tiit. Mhm. kon dafa mel ni kon euh, inconscience bi dafa des. ci askan wi bu ah, ah, bari na bari na ay parce que man jàpp naa ni bañ ne biñ ne état d'urgence doore doore waru ci woon a am état d'urgence buñ ko waxee mais bu fekkente ni sénégalais yi euh, éduqué woon nañ leen nañ leen war a éduqué dinañu xam ne état d'urgence danoo wàññi suñu àq ak suñu yelleef jox ko président. Mhm. et dans ces conditions une restriction de nos ñu ne ñu tel heure bu mu leen fekk ci biti mais heure boobu ñu nuy wax bu leen bu leen nekk ci biti du pour président du pour militaire yi pour ñun la. pour mm-hmm. aar ñu. alors bu ñu génnee di ko défier xam nga day dal wane benn niveau d'inconscience il a fallu que mu am de la violence ku nekk dugal ci sa gémmiñ pour que mbir yi dellu ginnaaw. Mm-hmm. léegi nag euh, persuasion moo gën. Mm-hmm. parce que képp koy utiliser violence ci kawam boo ko wanee ginnaaw. mu xam ne ne ko fii lan ko lan ko doon tere mu def lan mu def ko. Mm. donc persuasion moo moo moo moo fi moo fi am solo ci lu nga xam ne da ngay mën a dugg ci xelu nit ki. Euh, jëmbat fo lu nga xam ni nit ki daf koy jàpp ni moom police am mooy lii nekk ci boppam. Mm-hmm. tey jii tey jii inconscience bi euh, fës na boo déggee ñu naan njaganjaay yi ñooy jël nit ñi di leen yóbbu mais njaganjaay bu bëggee yóbbu te gisul ku mu yóbbu du dem. du dem nit ñi. Mm-hmm. jakarta yi dañ ñoo yóbbu jakarta yi ku bu ñu bëggee dem te gisuñu ku ñu yóbbu du ñu dem. Mhm. donc euh, soxna si bu ñu nax suñu bopp. Mhm. man je pense que am na am na gis nga benn nit bu jóg rek gàddu feebar bi le cas de Vélingara waa ji mu nga jógee Louga. Mhm. imaginez la distance Louga Vélingara waa ji yan astuce la def ak yan cabriole ba mën a àgg Vélingara. mën foofu. yóbbaale fa feebar la vigilance des forces yi nga xam ne waroon nañ taxaw foofu mais oui mais oui tey est-ce que eh, eh, eh. lajj amul ci côté aussi sécurité bi. force de l'ordre yi taxaw. mën na jaar sax ci yenn yoon yi. Hmm. mais encore une fois même les thermoflash yi gars yi utilisé am na seuil bu nga xam ne boo fa tolloo thermoflash du mënul feeñal dara. Hmm. day fekk feebar bi commencé am une activité ci sa yaram ba yaram bi tàng thermoflash bi soogaa wone ni kii kat yaramam tàng na. Hmm. mais ki nga xam ne mu ngi ci une phase asymptomatique thermoflash bi mënul fësal dara foofu. Mhm. donc lajj gi moom fës na. parce que euh, Louga ba Welengara wax dëgg yàlla. Euh, à moins que waa ji xam yoonu àll yi ba nga xam ne du jaar ci biir dëkk yi day teggi. Mhm. mais aussi euh, boo xoolee effort ya mu def yëpp ba àgg Welengara yóbbu fa feebar bi. genn wàllaatu effort yooyu bu ko defoon dem hôpital du wàll kenn. Mhm. mu mel ni kon war nañu gën a ñun tàggat suñu bopp encore ci. Euh, sensibilisation euh, je pense que si ñun la war a tàmbalee comme ni nga ko waxee. ci ñun la mhm. parce que gis nga euh, la force des armées c'est la discipline. Mhm. gis nga bu nu toogee naan guerre guerre guerre guerre puissance publique bi jóg na ni moom guerre la. waaw ñun ku ci toog ci ñun naan guerre guerre te amoo discipline milieu de commander encore soldat bi nekk ci front wu guerre bi. Mhm. man yaakaar naa ne ay naxe la. Mhm. ay naxe la. Mhm. du du du du benn propos bu nga xam ne dañ ko war a jël déshabiller ko mu nekk mboxos dañu ko war a jël di ko dund su fekkente ni dañu nekk ci front de guerre da ngay moytu boo taxawee ni jot na ñu aji la nga des fa. tey sensibilisation mu mel ni euh, euh, Ousmane Mbaye dafa war a nekk lu lu continue parce que par exemple tey lu mel ni coronavirus euh, je pense que waroon na am ay genre auto yoo xamante ne dañuy def genre sonorisation muy am ay message de sensibilisation dans toutes les langues yoo xam ne dafay jàll tout le temps di jàll tout le temps di kii ci koñ yi dugg proximité pour que vraiment nit ñi conscient parce que nit ñi dafa mel ni il suffit que mu am benn maanaam kii bu ndaw rek tourne xaw a inattention bu ndaw rek relâchement am mais sensibilisation bi d'accord na ak yow dafa waroon a jiitu dafa war a continuer dafa war a mujj euh, avant pendant après sensibilisation bi dafa war a continuer euh, réew yi nga xam ne yëpp ñoo ñu jiitu ci corona à commencer par la Chine fi mu toll li ñu ragal mooy un rebond en retour. Mm-hmm. ñu ngi commencer di def déconfinement. De, mm-hmm. de mais ñoom ñëpp li ñuy ragal mooy un rebond kon euh, sensibilisation bi. Euh, war na mën a nekk mais war na war na mën am ay opportunité am na ay moment ya nga xam ne nit ñi ñu nekk fenn fi moo xam ndax ci service bancaire yi la moo xam ndax ci poste yi la parce que gis naa ne poste yi nit ñaa ngi dem di jëli seen euh, bu sécurité familiale yi. Mm-hmm. Euh, période phase distribution aliment de soutien yi ñuy def nii. Mm-hmm. mais je pense que nekk na moment yi nga xam ni c'est d'une très grande opportunité pour que mu am ay groupe yu nga xam ne dañuy dikk di communiquer ak nit ñi. Mhm. di renforcer la sensibilisation parce que euh, la communication par les médias s'adresse à chacun d'entre nous individuellement. Mhm. kooku dëgg la mais am na communication de groupe. di fekk nit ñi ñi nekk fenn am lu leen fa soxal ba ñu daje fa. Mhm. nga dikk wax ñoom foofoo tamit le plus souvent dinañu am lu ñu fa mën a jëlee yóbbaale ko kër ga. mais bu ñu ci tayel bu ñu ci sonn parce que. mooy la stratégie qui nous coûtera le moins cher. Mhm. parce que bu dee garab rek la. yàgg na noo jënd ay garab depuis mille neuf cent soixante ba léegi te terewul hôpital yaa ngi fees dell ki malade. Mhm. du nu am mukk xaalis bu doy pour mën a faj ñëpp ñuy feebar. Mhm. kon bu nu xaar ba nit ñi feebar. ñu ne dañ leen di faj. nanu bëri ak xelu nit ñi. ba nit ki gis ni wér gi yaram alal la. am am la bu nga xam ni amul moroom dañ ko war a aar dañ ko war a ñoŋal ni ko doon waxee. tey jii est-ce que euh, pooru masque bi euh, ñi ñaa ngi koy respecté fële nga xam ne moom mooy ca Ziguinchor. ah waaw euh, xam nga xam nga ci wàllu woowu dafa dafa am lu xel di nangu ak lu muy bañ. Mm-hmm. Ah, takk naa luy muur sama bakkan ak sama gémmiñ. Mm-hmm. ñu ne masque la. mais est-ce que masque bi méngoo na ak la mu waroon a doon bu may takk masque bu nga xam ne nee nañu ma trois heures de temps boo ko takkee war nga ko génne. Mm-hmm. te doo ko doo ko jëfandikoo waat. ma ma takk ko pendant une semaine. Mhm. yaaka yaakaar na ne aara aara damay xaru. Mhm. Euh, kële dem benn tailleur jaay ko benn tissu bu mu ñëw ndax ma ngay protéger ndax protéger wul xaw ma mais li wóor ba wóor mooy léeg-léeg nga gis ci bu nga xam ni na muy mel wax dëgg yàlla euh, xel sax waroon na ko bañ nga di ko takk. Mhm. ndax euh, bu dee lu ñu mën a fóot la man jàpp naa ni boo ci amee ñaar boo boo génnee boo dellu see fóotal weer. takk booy génn takk beneen. waaye ba ko muy tilim ba. Mhm. maa ngi dégg Eva Maricol Seck ancien ministre de la santé mu naan même suñu yére yi nu sol. Mhm. bu nu dem doxi bu nu dellu see bu ñu ko manee. Mhm. nañ ko summi ñu fóot ko bu ko mënul nañ ko weer ci naaj bi man je pense que sensibilisation bi war na àgg ba foofu nit ñi xam ko bu baax séddoo ko. nañu xam ni virus bi bu ñu la nee bëggul tàngoor. du ndax euh, suñu réew moo tàng déedéet. mais boo fabee sa yére yi weer ko ci naaj wi jant bi di ko dóor pendant des heures virus bu dee mu nga fa dina ko rey. Mhm. loolu mooy wax bi. Mhm. mais fi mu moo tax man la xel am na lu ci ciy nangoog lu muy bañ. Mm-hmm. ñaa ngi koy takk mais est-ce que masque yëpp ay euh, protégé. Mm-hmm. foofa nag communication bi xam naa ni am na fa liggéey. Mm-hmm. foofay wax ji parce que tamit. Ah. Euh, ñu ngi am na ñu doon wax sax euh, bi ñu waxee ne pooru masque bi c'est obligatoire que ni bala nga naan naam ne fa tey jii ni waroon nañoo jox au moins nit ñi ay masques yu ñuy takk parce que tey yaakaaruma ne askan wi bëri na ñoo xam ne mën nañu chaque deux heures de temps ñuy changer masque. te masque yooyu tamit bu dee bu baax bi rek am na lu muy jaax askan wi fu mu toll lu nu lekk lañu ñu tal taluñu jënd masque yoo xamante ne donc mu ay paramètres yoo xam ne yu bëri yu ñu war a jël en ci lu wér. Mm. ci lu wér bon euh, wa tudd nga benn moo léegi muy euh, tal nañu lu ñu lekk la ñu tal. Mm-hmm. Euh, effectivement Sénégal boo boo boo nee càpp dara ñun la ñun dañoo xiif. Mm-hmm. mu am ci yenn gëstukat yi ni mais bu fekkente ni réew mi saa yoo waxee ñun la danoo xiif bu ñu tegee dara ci trottoir bi boo leen fa bëggee jëlee ñu ne man damaa xiif damay wut nu ma ki mhm. mais dañuy dem ba yàgg ñu ne mais ñii lan lañu ñu xiif est-ce que ñam la ñu xiif wala dëgg la ñu xiif. Mhm. jàpp naa ni fi mu toll Sénégal. Mhm. mu gën a xiif mooy dëgg. Mm. li mu gën a xiif mooy dëgg. laamiso bi na fu nga xam ni lu nu diis si ñun rek ci laamiso bi la jaar. Mm-hmm. maintenant masque yi gis nga xel du nelaw mukk bañ ne masque yi ba ñenn ñi ne ah man ma lu ma jënde masque di ko changer toutes les trois heures de temps mm-hmm. immédiatement am ñeneen ñu ne kon de man naa am man lu ma fortatu ci ci ci loxoy nit ñi dan xaaral ma defar masque jaay ko nit ñi mm-hmm. la ñu la di jaayal seen bos ma jaay ko lu ko yées man cee am dara ku nekk nekk day defar masque aujourd'hui euh, li am solo mooy ñooñu nga xam ne ñu ngi yore seeni machine di defar seeni i ñoom seen euh, xëy na sensibilisation bi waroon na mën a àgg ba ci ñoom. Mm-hmm. Euh, wan leen masque naka lañ ko war a mën a defaree ba mu mën a jariñ. Mm-hmm. bu ko defee euh, njëgg bañ a àgg fenn fi mu bañ a nekk mar masque jetable nit ñi mën koo jëfandikoo di ko fóot. Mm-hmm. paase ko parce que nag loolu moom wax dëgg yàlla du jaas. bo boo boo fóotee parcelle mm-hmm. da yokk day yokk rek. Euh, kaaraange mm-hmm. day yokk fagaru bi. Mm-hmm. Euh, de sorte que loolu boo ko defee ba àggal li ci des nga bàyyi ko ci yàlla mais nag defoo dara ba noppi ni yàlla ah dina doy waar masque yi euh, am na ci yi nga xam ne njëg yi ñu am wax dëgg yàlla kuy wut lu añe moo ko njabootam. di du ko fa def. dëgg nag bu fa deful. ñeneen ñi koy jaay masque te masque yooyu xëy na binduwuñu ne na mu waree ñooñu la ñu war a mën a capacité ba nga xam ne dañu ki parce que lii bu ñu demee ba lever confinement beeg affaire yooyu mais il faut ñu continuer di yor masque xalaat nga ne bu ñu reprendre les les cours le 2 juin. Mm-hmm. mais xalaat nga élèves yi dem école du ñu takk masque. dina doy waar élèves yooyu ñaata lañ ci réew mi ñu leen di jàngal ñaata lañ ci réew mi. oto ya ñuy dugg ba ba ñuy àgg mais donc tey masque dina nekk un élément stratégique bu nga xam ni wax dëgg yàlla ñu jàngal ñu koy defar gën gën nga defarin dina tax kaaraange gi yokk dina tax fagaro gi gën a dëgër. te te bu weesoo loolu sax dangay gis euh, des fois yenn comportement yi da ngay gis ku taxaw di jaay masque am ku ñëw jël nat euh, masque yi di natt. Ah. waaw xool ndax jot na maam déet bu la jotul nga delloo fa jël beneen di ko jàmb. donc loolu tamit mu nekk lu doy waar. kéemaane na kéemaane na moo tax ma doon wax sànq ne nun nu ñuy nekkee mhm. il faut que ñun ñu critique ci suñu nekkin mhm. waaw di interroger waat suñu nekkin lan mooñ ci man a gaañ am na la nga xam ne tàmmoon nañ ko ci marché ba yëkkati jënu jàmbur teg yëkkati ki mais euh, tey ji buñ la ne bul joxe loxo nga dikk ni dangay jënd masque te ni dama koy natt mhm. waaw yow yow mi natt ba noppi delloo ma sama masque bi man damaa xam lu nekk ci yow masque boobu kaneen ko koy jël mu yem ci moom dafa xam lan lay yóbbaale donc euh, il faut ñun ñu ñu ñu ñu ñu ñu mën a kii euh, gis naa ne masque yu ci bari léegi amatul ay attache mais ay élastique lay yor. ay élastique. oui mhm. bon élastique bi bu guddul trop je pense que masque yu ci bari dina mën a adaptable euh, à beaucoup d' individus. Mhm. mais wax dëgg yàlla. Euh, jël un produit bu nga xam ne parce que gis naa ñenn ñi léegi dañuy defar masque bi def ko ci emballage. ci emballage lay nekk du ci bëri. waaw léegi nag euh, masque bi nekk ci emballage nga dikk ni da ngay ubbi emballage bi natt bu la jot bula la ëppee nga delloo ko fa xam nga loolu. day doy waar kéemaane na kéemaane na mhm. kéemaane na. Euh, tey jii nii Ousmane Mbaye lan nga xalaat ci ñi naan ñi naan par exemple tey dañu war a def test de masse maanaam test ñëpp. loolu wax ju yàqu la. Mhm. ci sama gis-gis. Mm. wax yu yàqu la parce que bu fekkente ni li ma waxoon sànq dégg nañu ko ki nga xam ne nekk na porteur asymptomatique. Mm-hmm. ah mm-hmm. yor na doomu jàngoro bi mais sëqagul sëq buy tax boo ko testé mu feeñ boo dikkee def test. Mm-hmm. kooku da nga koy da nga koy sànq da ngay sànq ñu mu dëkkal ndax day génn ne ah man tefal nañ ma test aw ko. ñamu dëkkal ne ah moom amu ko danañ ko ñeme. dina gën a nit ñi. or waa jooju nga xam ni defal nañ ko test feeñul ma ngay wàll ña koy jege. Mm-hmm. kon test de masse amul amul man day ci sama gis-gis amul sens man na dalal na xelu nit ñi. Mm-hmm. mais mais euh, dalal xelu nit ñi euh, ba noppi mu ju mu sóob leen ci yoonu sànku. dafay dafay nekk beneen effet pervers bu ci jóge. bu ci parce que bu fekkente ni boo testee nit ñi. ñi ñi ngi ñi nga xam ne bërki demb ak démb la ñu contaminé wu bërkaati demb la ñu contaminé wu àggaguñu fu nga xam ne am nañu benn seuil de présence ci test yi. Mm-hmm. ñooñu ñu ngi ci biir nit ñi de wàll nit ñi. Mm-hmm. nga defal leen test yow yaa leen di jox sax léegi diplôme ne ah yow de amuloo. amuloo bu ko defee moom mu bàyyee ko. ah waaye yow mu saañu ci biir nit ñi nag di yàq di dem. Mm-hmm. bis bu ñuy xam ne jot na ko mais fekk na taal na dëkk bi. kon test de masse Euh, euh, euh, il faut que ñun ñun Sénégalais ñu nangu ni test bi du faj. Mhm. test bi leen rek la nuy woon que waa jii de ci moom jamono jën koy defal test bi gisuñu ci moom luy war a mën a firndeel ni am na doomu feebar bi. Mhm. dégg bu baax li may wax. Mhm. amuñu firnde buy wane ni ci jamono ji koy defal test bi. amul doomu jàngoro bi. am na ko. léegi nag bu fekkente ni technicien bi noonu lay waxee. il faut que ki ñu defal test bi moom te mu nangu ni man mii de waxtu bi ñu may defal test waxtu boobu amul luy feeñ ci sama yaram luy wane ni jàngoro jàng fi mais amuñu preuve ni nekku fa. Mhm. d'accord nga yaa ngi may dégg bu baax. maa lay bu baax. Mhm. amuñu euh, preuve ni nekku fa. Mhm. donc c'est pas pertinent. c'est pas non c'est pas pertinent. ça demandera beaucoup de moyens. Mm-hmm. des ressources humaines des ressources matérielles yi nga xam ne dafa coûteuse et te yàq doon au final résultat résultat ba au final sànn dina dina wute trop ak la ñuy séntu mm-hmm. man li ma gis mooy procédure bi ñu adopté nii nit ñi xam nañ ko mais mooy la procédure la meilleure ku ni cëpp fenn ñu yowtu la ber la fenn di la suivre ku nga xam ni yaramam gis nañ ci moom fièvre ñu jël ko comme un cas suspect defal ko prélèvement def analyse bu fekkente ni fièvre boobu jogewul ci corona ñu fajal ko li li nga xam ne moom la ñu jàpp mooy feebaram bu fekkente ni corona la ñu gaaw ko yóbbu ci centre de traitement yi ñu jël ko en charge bala muy àgg ci cas grave. Mm-hmm. Euh, tey tey jii nii ñu gis ne par exemple personnel de santé bi dañoo impacté bu baax ñoom ñoo nekk au premier plan donc mu nekk loo xam ne lu lu metti la. nga dem mm-hmm. di faj faf nag jëlaale fa safaan wa dafay nekk lu lu metti gis nañ la xew ca principal. keroog euh, bien que docteur Bousso génn na wax ni centre de traitement yi amul ay ñoo xam ne am nañ ko mais quand même ñi nga xam ne ñu ngi koy am peut ñu ngi ci hôpitaux yeeg yeneen bërëb yi nga xam ne c'est pas forcément peut-être mm foofu centre de traitement donc tey est-ce que personnel waruñ leen gën a aussi doté en ñu gën leen doté daal gën leen may doole mais soxna si man loolu loolu ngay wax la d'accord mhm. euh, docteur Bousso bu taxawee naan centre de traitement yi dafa fàtte nii en amont des centres de traitement am na ñeneen ñu ñu def beneen liggéey ba centre de traitement yi sogaa am lu ñu liggéey. Mm-hmm. ñooñu bu fekkente ni aaruñu leen bu màbbee musiba mbàbba kumba lay doon. Euh, personnel bi nga xam ne moo nekk ci consultation yi ci poste de santé yi ci centre de santé yi. Mm-hmm. personnel bi nga xam ne moo nekk ci soins yi ci salle d'hospitalisation centre de santé yeeg ñoom seen personnel boobu bu fekkente ni joxuñu ko des moyens de se protéger. Mm-hmm. personnel bi doyul benn ñaar bu feebaree ñu mettre ko en quarantaine manqué ba dina yokku mhm. le principal perdant ça sera la population bi nga xam ne dina am ay soins en souffrance ba noppi corona bi mën a am brèche yu muy gën a engagé woo ci biir euh, population bi mhm. donc euh, je suis tout à fait d'accord ak yow ci euh, loolu nga conclure est-ce que waruñu ko gën a dooleel mais dañ gis nga le début depuis le début ñu ngi leen di wax naan leen il faut protéger le personnel. Mhm. il faut protéger le personnel. Mhm. protection boobu lan la mais protection boobu nañ leen jox masque yi doy. xoolal bu ma nekkee ci poste de santé ñu indil ma benn carton wu sans masque. Mhm. man trois heures de temps yu nekk ma war a génne masque changer beneen. ci bés bi ci bés bi lu mu gën gaa neew dina war a mën a jëfandikoo ñeenti masque bu fekkente ni ci poste ba maa ngi fa yore sama sage femme yor fa benn euh, infirmier adjoint yor fa ay communautaire ñii nekkal ma ca pansement ba ñii nekkal ma ak sage femme bi ci kii mhm. mais xoolal ñooñu ñëpp bu fekkente ni ku nekk yaa ngi war a utiliser quatre masques par jour boo ma indilee cent masques ñaata fan lay doon mhm. lu donc c'est des c'est bu nga xam ni dafa stratégique tey te quantité yi ñu ciy joxe du doy mhm. donc euh, ensuite maintenant li ñu tuddee euh, équipement de protection individuelle. Mm-hmm. ndaxte bu fekkente ni dem nañu ba àgg fenn fi ba nga xam ne xel ñaaw na mais agent bi war na mën a am un équipement bu nga xam ne moom lay sol pour dem ci ki nga xam ne moom lañ jàpp ni dafa feebar. Mm-hmm. léegi nag euh, centre de traitement yi mais centre de traitement yi bis buñ ko taxawalee mais je suis désolé mais bu ñu ko taxawalee te équipement amu fa mais kenn du xaru di fa dem. Mm-hmm. léegi ñooñu am nañu équipement mais ñooñu euh, ni ñu amee équipement noonu la ñeneen ñi nekk ci périphérie bi war a am équipement mm. kooku euh, sécurité wu population yi moo laaj loolu sécurité wu agent yi soog a ñëw parce que. agent bi bu fekkee foofu dañuy dem ci seen i kër aussi. mais loolu laa lay bëgg a wax. Mm. dañuy dem ci seen kër dañuy dem kii parce que agent yi nga xam ne contaminé nañu am nañ ci cas yi nga xam ni du sax ca liggéeyukaay ba la. Mm-hmm. ndax dañuy dem seen Euh, war a jóg seeti ay mbokk ndekete am na lu fa nekk donc ci communauté bi lañ dëkk ci communauté bi lañ dëkk ñun ci suñu bopp dañoo war a am autant de vigilance que tous les Sénégalais. Mm-hmm. mais nag ci bërëbu liggéeyukaay ba lu bon bon ñu mën faa fekk la nga xam ni boo ko solee sa xel dina mën a dal nga mën a def liggéey bi jox ko àqam yëpp. Mm-hmm. waaw mais boo ko joxul àqam euh, mbir mi yaakaar naa ne di nga tëdd guddi doo nelaw. doy na waar. Euh, waaw tey jii nii par exemple euh, gis nañ ne mu ngi war a nekk fête du travail. Euh, donc euh, central syndical yi dañ daan joxe ay cahier de doléance ak yooyu mais ren amul mu mel ni quand même am na benn sursaut patriotique boo xam ne quand même am na au niveau de la population et des travailleurs. Euh, waaw sursaut patriotique nga ko tuddee man xam nga man sursaut de bon sens laa ko tuddee rek <laughs> <laughs> sursaut de bon sens laa ko tuddee parce que je me suis dit que bu fekkente ni dem nañu ba mu ñu ni ah, tampaloo baaxatul ci ñun jonjoo baaxatul ci ñun. kon kay soroyo ak afal mooy jàmm ci ñun. Mhm. Euh, fête du travail euh, défilé am ak folklore am ko teg fële. Mhm. Euh, cahier de doléance mhm. ñu am ah waaw tey jii la doléance waroon am ci sama gis-gis man mi nekk santé. man mi nekk santé. man dama jàpp ni tey jii la doléance waroon a am. ndax tey jii naa ni santé. ku leen bàyyi woon ñu wax la leen di metti euh, di nga dégg dëgg te bu fekkente ni da nga bëgg soppi doxin di nga dégg dëgg yu lay may euh, nga tànn weneen yoon pour que ëllëg santé wu réew mi bañ a mel ni mu meloon. Euh, corona indi na wax bu bees ñu ni yëlif dañ daan daw di fajo ji ci biti tuñu fu ñu daw jëm. Mm-hmm. kon nañu defar li ci biir kër gi xam nga euh, dama dégg benn waay bu nekk communication foofu day wax ni benn bëñ ci gémmiñ mm-hmm. ñu ne waaw mu ne ah war nañ ko mën a socc ba mu weex ndax ree ji neex benn mm-hmm. bëñ ci gémmiñ ree ja mënu la neex wante nag càggante mën la weesu nga sàggan ba mu mënoo koo euh, socc ba mu weex or il se trouve que amuñu beneen santé bu dul bii mënuñu ko toppatoo ba mu mën a mel na mu waroon a mel kon bu corona ñëwee fësalal ñu manqué manqué yi fi am dem bàyyi ñu ñu waat manqué manqué yooyu sàggante mënu ko weesu. Mhm. voilà tey tey aussi euh, peut-être li may jeexalee question parce que. Euh, yegg yegg si nañ si njëxitalu émission bi moom mooy tey euh, euh, monsieur Mbaye ñu gis ne comme ni nga ko ni nga ko waxee au début rek corona bi daf ñu jàngal lu bëri. tey mhm. bus yi dafa daan fees dell ak nit doo mën a nooy sax fa nga nekk. mun na nekk situation bu doy waar tey bus boo dem place bu ne benn ni dafay toog. tey mhm. jii nii li nga xam ne moom mooy fami ñu ngi retrouver wu ñu nekk en confinement ci yenn réew yeeg yooyu. couvre-feu bu jotee gars yi di euh, euh, toogaat di kiwaat tey euh, défaillance yi génn na éducation mu ngi nii mhm. système de santé coronavirus am ay jàngat yoo xam ne indi nañu ko mettre na à nu suñuy manquement tey lan la ñu war a tirer comme leçon selon yow d'après corona Euh, euh, les, les leçons mooy d'abord ñu bàyyi diversion yi mhm. te ñu dem ci li essentiel réew mi avant corona di ñëw xam nga loolu yaa ngi fàttaliku yow yaa ngi ci communication yéen a ngi ci information. Mm-hmm. Euh, avant avant corona ñu ngi ci lan. débat wu troisième mandat. troisième mandat <laughs> ña ña ña ña uh-huh. kenn mënatul euh, lu tax wax a ah, ah, ah parce que loolu moo lay woon ne ay caaxaan la woon. Mm-hmm. <laughs> loolu moo lay woon ne ay caaxaan la woon diversion rek. Mm-hmm. Euh, divertir nañ ñu ci ay faux débat de telle sorte que l' essentiel amul. ndax tey bu fekkente ni après soixante ans d' indépendance toog nañu ba tey ñuy wëlbatiku du laajte xel ak xalaat ci nu ñuy defaree santé bi. Mhm. kon divertir nañ nu pendant longtemps de telle sorte que euh, la ñu waroon a gis gis ñu ko la ñu waroon a wax waxuñu ko la ñu waroon a def defuñu ko donc tey. corona am na foofu un aspect bu nga xam ne mënuma wax ni positif la mais en tout cas nekk na un révélateur. Mhm. du néant d'accord Mm-hmm. Euh, bis bisi dafa joxe beneen jàngat mais ngir yàlla bu fekkente ni tey nit ñi mën nañoo toog benn place sur deux ci bisi yi di daw. Mm-hmm. mais suba au moins bu mu amati place debout. Mm-hmm. bus yi bu ñu chargé mu fees nit ñi toutes les places sont assises nit ñi mën a dem. loolu dafay tax rek euh, certainement on utilisera plus de bus, ça fera plus d'emplois et ça fera plus de biens dans les ménages. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu loolu dafa di une évidence économique parce que ñi taxaw ñëpp ci bis yi du buuxante. feesoon mm-hmm. nañu yeneen bis. yeneen bis yooyu ñeneen a ko doon dawal yeneen receveur fa doon nekk. kon li li li li ndaw consomma euh, de de euh, de l'association des consommateurs naan ñëppay mos. Euh, il faudrait en économie dans un pays. la répartition des ressources dafa am yoon il faut nga multiplier opportunité yi pour que ku nekk am luy wadd ci loxo mu koy yóbbu ca kër ga. Mm-hmm. boo jëlee nag ñu néew ñoom rek ñuy am ñi ci des te gën a bari amuñu réew ma toujours ci ay problème lay nekk. Mm. donc tey yooyu yëpp nekk na ay leçons y a leçons yu ñu mën a tiire sur le plan économique. ba ñuy wax naan ba monsieur Mbaye bu ñu demee ba ceeb di joxe ceeb mu def ko genre bàkku. di joxe ceeb ak dëwlin benn saako mu nekk bàkku y problème. waaw a problème. Mm. y problème parce que tey tey tey tey bu fekk continuer suñu programme agricole yeeg suñu politique agricole yi depuis l' indépendance léegi awoon na yoon. tey jii euh, dinañu tal leneen lu dul ceeb di ko yóbbu ci kër yi di ko def ndam. Mhm. Euh, loolu am na am na am na geste yi nga xam ni à contrario boo ko liiree bu baax kersa la liñ naan euh, xaj yi ni jonn ci kër gi di sàggan ba bëyi matt gan ñi loolu loolu noonu lay demee. Mhm. noonu lay demee parce que la nga waroon a def démb ak bërki démb defoo ko ba lii dab la nga ne ma ñëw oyfal leen est ce que dañ leen di jox ceeb fii ba ba corona di génn fii. Mhm. duñu duñu ko def. Mhm. duñu ko def. ils le feront une fois ils le feront maximum deux fois. Mhm. après dinañu ne attanuñu ko ainsi de suite la la raison de l' économie va faire que justement dem ba benn période li ñu joxe ci ndejoor nangoo ko ci càmmoñ. ci naka tout simplement parce que li ngay jënd dina yokku. na la wóoral wóoral madame. Euh, économie yu réew mi du mel na mu meloon avant corona. Mhm, lu bëri dina soppeeku. Mhm. lu bëri dina ci soppeeku. te soppeeku googu du doon ay yokku mais ay manquement lay doon. Mhm. donc bu fekkente ni dañoo war a dem jëm ci situation de raréfaction nañu tiit inflation parce que bu inflation installé woo est-ce que léegi bu fi corona nekkul ñooñu nga xam ne ñoom inflation bi da leen di impacter dinañu leen mën a jox lu leen di yor ba keroog inflation bi di supportable. donc yooyu yëpp dafay nekk ay leçons à apprendre en tout cas yi nga xam ne ay aspect yi nga xam ni euh, épidémie endémie wu euh, euh, pandémie wu corona bi daf ko indi jëm ci beneen aspect éducation santé tey ñëpp ils se rendent compte que ndekete ñaari secteurs yi bu ñu wérul réew mi du mm-hmm. éducation formation formé woo ay xel. Mm-hmm. yeetu xoolal xoolal xoolal ay correct ñoom seen lu tax ñu mën a supporter affaire yi dékku ko kenn waxu fa waxi yóbbul leen ceeb ak ñoom seen mais ba ñu ba ñu moomee seen bopp la ñu njëkk a jiital mooy yeete jàngale yar wëlbatiku faj. aujourd'hui Corée dama lay wax ni la madame boo dëkkoon Corée tey. Mm-hmm. ñoom bu ñu fu ñu mën a toog au niveau des centres de décision bu ñu soxlaa dinañu xam foo nekk fan nga dëkk gan kër la ci ban quartier la ci fan. mais loolu demal fii rek maire wu Sénégal ngay wut sa extrait de naissance dinañu xam ndax xam nañu fan nga nekk. Mm-hmm. d'accord donc euh, bari na lu nu war a mën a jàng en terme de d'organisation et méthode. Mm-hmm. te loolu lépp dafa feeñ ci mbir mi. ci mbir mi. donc euh, leçon à apprendre yi bari nañ xaw ma nag ndax ñun dinañu wàkkirlu takk suñu ndigg fas yéene changer ne niy nekkee au plan de la gouvernance comme au plan de la citoyenneté mhm. man loolu daal xam naa ni euh, mënuma ci mënuma ci dem ba mu jeex tak mais bu ma ko tënkee noonu ñi ni ñi ni ñi niy jiite mhm. war na ñoo xool niñ ñuy bootee xoolaat seen bopp ñun ñi ñuy boot war na noo moytu di sax béjjëni biir <laughs> kon ti kàddu yu am solo yooyu euh, Ousmane Mbaye ci la ñuy jeexalee émission bi di la jaajëfal may la nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi. mais di la sant yow mi ma may opportunité bu ma mën a wax ak seen auditeurs yi ak seen auditrices yi. Mm-hmm. Euh, di ñaanal ñëpp koor gu jàmm te lépp luñ ci sabab lu yal nañ ko yàlla yombalal te barkeelul ko. Mm-hmm. Euh, lu ñuy ragal ci jamono ji yal nañ ko yàlla teggil indi indil ñu lu ko gën. amiin mm-hmm. di jaajaat suñu morom yeeg suñu mappandoo yi yëpp di wax ni rek. allah kulli yàllin am na lu nga xam ne bu feeñee ñaaw njort ak moytu rek mooñ ci mën a génnee. Mhm. bu ñu werante lii ñuy wax am na. sida bi mu ñëwee am na ñu wax amul amul amul. Mhm. Ebola ba mu feeñee am na ñu doon wax amul amul amul réew ya nga xam ne fa la woon ña doon wax amul ñoo njëkk a jeex. Mhm. kon nan leen ci jànge ño moytu te xam ni euh, moytu même bu dee da ngaa moytu lu nga xam ne amul du la wàññi dara mais boo moytoo bërëcc li nga xam ne am na loolu du la wàññi dara da lay jëriñ. Mm-hmm. kon moytu du pertement. Mm-hmm. man pour man moytu investissement la. loolu moytu boobu may wax nag moom la ñuy globaliser en terme de fagaru. Mm-hmm. ndax nag ak nu mu mën a demee fagaru ba continuer ci sa wér bañ a dem hôpital moo gën fagaru ñàkk a fagaru ba dem hôpital. jërëjëf jërëjëf euh, Ousmane Mbaye ñu lay jëfal bu baax a baax. Euh, nga nekk mm-hmm. kon euh, ku bokk ci fi nga xam ne kuréel bi nga xam ne moom mooy kon SUTSAS di syndicat boo xamante ne dafay taxaw ci daal sàmm ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy consommateurs yi ci wàllu wérgu yaram su ma ko mën waxee noonu. yow yaa mm-hmm. yor formation professionnel ak syndicale foofu nga xam ne ca SUTSAS. nekk mm-hmm. tamit président région de Ziguinchor bu ASAS SUTSAS SUDTM e SAT santé. di la mhm. jaajëfal encore une fois bu baax a baax euh, di euh, wax ni rek ñu ngi euh, lay remercier ndax waxtaan bi amoon na solo trop jàng nañ ci lu bari. di jaajëfal itam mbokk auditeurs yi ñu doon déglu ci la 97.5 Rewmi FM mhm. di leen dig daje vendredi prochain incha allah Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi jërë ngeen jëf.